Sénégal mag ak ndaw jigéen ak góor euh, man Mouhamed Lamine Souma dëkk ci Wakaam yaroo Wakaam nekkoon fii terme sud ak sama mag tey man maa ñëw di waxante ak yéen di di sant kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp tey lu ñu gis terme sud ñaaw na te lu ñu gis terme sud du dëgg du yoon dina président Macky Sall yow yaa ëmb ñëpp boo xoolee article 44 de la constitution moo la may doole mu yaay chef suprême des armées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 on nous tue mais on ne déshonore pas nous devons waruñu nangu ñu xaajale ñu parce que bu ñu xaajalee armée sénégalaise day indi li nga xam ne moom mooy fragmentation de l' armée te fragmentation de l' armée l' armée sénégalaise est une armée républicaine te boo leen xoolee euh, gendarme yi ñëw nañ pour maintien d'ordre ñoo ngi leen di génnee dañ koy def me du leen neex kon mën na leen président Macky Sall dem lay ñaan xam nga dossier bi nu mu demee.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 ñoom ñoo ko moom li si des kañ mooy séddoo bi rek mooy indi coow su dama la lu mu la mun ta wax président Macky Sall xoolal si article 44 de ma constitution nga xool nga bàyyi njabar ji toog armée kenn du leen diviser Ablaye Wade waxoon na du ma am na ñoo xam ne seen bàyyi ci xare lañ dee Ablaye Wade waxoon na ni mun na duma ma génne soixante quinze famille ñu toog te Macky Sall ñëw pour que njabar ji génn lii dina doy waar kon dama leen di ñaan yéen ñëpp.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 bu ñu jaxasee armée sénégalaise. man madame lu Ndeye Koumba Gaye. ci suba ba tey yéen a ngi maanaam dund ay jafe-jafe yoo xam ne seen onze billahi min cheytaani rajim yàgg nañ ko dund nag depuis 2008 c'est que comme dañ nekk ay jabaru homme de tenue suñu jëkkër yi nekkoon ay homme de tenue moo tax dañ doon négocier sans bruit di lijjanti kayit yi ndax ñun jigéen ñi bañ defee suñu association di def benn.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 benn colonel woo ñu si salon Wardini damay wax turam mun ñu def leen ni seen nawle yeneen ñi nga xam ne dañ leen doon li euh, jéem a bundu xatal li may dégg mais fii baay bi jeex na depuis 2014 jóg la ngeen def seen demande ñu def suñuy def suñu suñ suñu présidente yi def suñuy def demande gis nga yëfu jabaru militaire rek ñu li ñuy wax si naagu rek ñu jël suñu réponse dem yóbbu leen ko bañ tàng lay Wade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 ñuy wut suñu këyit ba deux mille dix neuf la ñu am droit réel boo xam ne charge néant kenn moomu fi du ñun du ñoom parce que armée nee nañ mosuñ ñu leen attribué fii ñoom tubaab yi ñoom ñoo nekkoon fii mais tubaab ñoom dañ naa renouveler seen baay mais nag ñoom xam nga rek dañoo doon nelaw depuis 2014 renouveler wuñ seen baay. wallaahi wallaahi wallaahi azim wallaahi kooku dafa fekk.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 mu jox ñu. tey en tant que femme euh, militaire nan la leen def tey ngeen gis euh, moromam hmm. naataangeem tey ñu leen génnee ak seen njaboot yi seen bagage yi jox ko si mbedd bi. dañu toroxal ak fi ñu jaar suñu jëkkër yi ñoom ñoo bokk école di jàng France di jàng Maroc génn du ma wax sax ay kii parce que moom xam na fu mu jaar yëpp mais ñun dañuy dox droit rek ndax lu ñu yàlla may rek droit may loolu lañu ñu bañuñu ko mais nañu justice tranché vendredi 2 gannaaw suba la ñu am ak ñoom mais lu tax lu tax ñuy anticiper lu tax ñuy anticiper moom mu jël décider dem TFM taxaw fa di wax li muy wax ne day exécuter lu muy def lu ko def ñëpp gis nañ li euh, bi mu génnee mooy moom la waral tey te nu mu ko waxee woon loolu la ko waxee tey wala suba la ñu waxoon. lan ngeen di xaar fi mu nekk. lan la ñuy xaar du génne suñu bagage yi <laughs> xaar yàlla ba mottali li si des parce que moom rek fi des ak état tam wax parce que ñun état moo ñu fi téye Macky sal si boppam wax ne joxe ni kii boo xam def ne.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 ancien mi c'est des minables moom mooy ñëw exécuté loolu def tey. ni ñoom dinañ leen fekk seen ñii liggéeyandoo ak moom xam nañ ne dinañ ñëw parce que xam nañ ko parce que ñoom ñoo yàgg di déggoo ma ne depuis France Maroc ñoom xam nañ fu mu génnee ñoom ñii pilote yeeg chasse ñi fi nekk ñëpp xam nañu ñoom tim nu ñu digaaleeg moom dañoo wax gu ndax dañ doon xaar verdict bi génn vendredi ñu soog a wax kan mooy Birame Diop parce que ñu ko suturaale ñu ko mëf mëfal ba tax muy def moo tax mu génn ñun suñu avocat la ñuy wax il